loolu laa koy dénk te di ko ñaanal yàlla yaayam yàlla yaram ko. amin amin amin jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah am na solo waxtaan wi euh, Cheikh Bara euh, dañuy ñëw ci xaadim sàmb dafa mel ni xaadim déglu nga ko. Euh, mu yëkkati ay kàddu. ba président. ne ko waxal. wax ko. waxal li nga war a wax. dara du xew. noo jàngatee xaadim Samb. mi ba ma <laughs> président ne ko waxal <laughs> waaw Xaadim <laughs> euh, Samb de mm-hmm. dañuy dellu si waat ci troisième rek mooy Macky Sall moom dafa mel ne sans mm-hmm. dépend ci groupe bi muy àndal rek gis-gis bi muy am groupe bi muy àndal gis muy doog a toog mm-hmm. am relation ak ñoom alinti nag ñoom Jacques Habib Seck ñoom yaanaa maar ak yooyu mm. daf ne cinq sept ans sax dafa bari ci mandat damay wàññi cinq ans ne sàcc gi dafa war a dakk daal di ah. teg of nag mhm. ñu dem ba mu yàgg waaye yaanaa maar rocc ko ñoom Jacques Habib Seck ñoom Habib si ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Sidi Lamine nag ñoom Alinti nag yooyu rocceeku beneen mhm. groupe ñëw waaw groupe boobu bi ñu ñëwee moom dañ ko gëmloo ne ko bul wàññi sa sept waaye defal sa sept defaat sa cinq te dem mhm. groupe boobu Macky Sall sal gis nga bi groupe bee nekkee fee ku bañ mandat la woon waaw bi groupe bi ñëwee ku topp ay norme lay doon Mhm. maanaam ay normes quoi. nañ toog te dem suñ yoon bu ñu kenn tudd ci troisième mandat. muy groupe groupe bu groupe bu APR ñoom Maodo Malick Mbaye ñoom ñoom Moustapha Diakhaté meek maanaam koosor googu nga xam ne ñoo bokkoon wuti ak alin Aline Badara Cissé. Mhm. ñu ko wëree. Mhm. ci loolu la nekkoon. waaw ñu dem ba mu yàgg Aline Badara Cissé dem Moustapha Diakhaté dem ñoom Maodo Malick mbay mel lu rocceeku ñu jékki-jékki loolu wàññiku beneen groupe ñëw muy groupe bu PDS nga xam ne dañoo gëm troisième mandat. waaw biñ ñëwee ñoom itam. daal ne ko léegi nañ laaj troisième mandat mu toppati leen kon ñun président bi ñu yor xel xalaatut ne moom amul décision décisionul boppam. waaw li muy def mooy groupe bi mu àndal. Hmm. ñoom lu ñu nekk ma nga ca. fii hmm. ne des na tuuti bu waa Pastef moon rallier bari ca groupe ba. mën naa xëy mu gëm démission daal démissionné moom moom moom daa mel ne ko décidé wul. <laughs> ci ñàkk ah loolu nag man dama ko a te seetlu leen ko bu baax a baax. ñàkk <laughs> décision googu nag. dafa mel ne moo tax tey Xaadim hmm. Samb. maanaam dama ko waxoon ne ko mën ngaa yor police yor gendarmerie. yor. Euh, justice yor lépp ba noppi bëgg fi loo ñi mi wu la wax te réew mi kenn ku ne li nga bëgg yaa ngi koy wax ba mu des yow waaw euh, tey nit day rek respecté regal mhm. ndax boo demee ca euh, téeréem ba mook Souleymane Leena Ndiaye dégg naa mu nettali ko mu ne dafa amoon ndaw suñuy wax sandri sandri waaw ñoom ñoom sandri yëngaloon na Sénégal ñoom ñëpp ñu ñoom ñëpp ñu bëggoon ko ñu amoon ci moom cofeelu nap daal mm, maanaam ngeen baal ma ko nag biñ ko bëggee ñu def benn pacte ne bu ko kenn jël parce que ñun ñëpp ko bëgg dama koy wax ne ko nag ndegam yaa mën a respecté pacte boo xam ne uh-huh. ci jigéen ju ngeen bëgg dong ngeen ko mën a respecté waaye waaye respecté ñu suñ pacte réew mii waaw waaw nga respecté woon pacte Sandri ba koy bind respecté pacte bi Macky Sall mm. Xaadim Sàmm nag ab géwalub Macky sàll la dafa dox ba agsi tiim Macky Sall géwal nag ñaareel boo dajee géram mm-hmm. da koy fekk mu mu mu nekk ci xare baa mu war fas dawal ko baa mu nekk ci xew def def ngóora mu keñ la waaw yokk sa ngóora mhm. waaye bii nag ma xaadim sàmm dana jàkk Macky Sall mhm. yëg ne waa ji daa ragal oh, daa ragal waaw loolu la yëg ah, da koo xool mu feebul mu ne ko président waxal waaw waxal rek boo waxee xat du dam mhm. kon mooy waxal gars yi duñ la def dara kon man dama lay wax ne loo dem ba ragal ko waaw ba xaadim sàmm ñëw di la yokku fit waaye waaye jërëtu ko man bi nga taxawee xaadim sàmm taxaw <laughs> dafa am lu image bu garaaw bu ma fàttali. muy <coughs> mooy jamono yi ñu nekkee gone nga xam ne dañuy dañ naan dañuy cëppal xale bi. Ah, dañ koy <laughs> cëppal nga xam ne da ngay woo sa benn xarit mu taxaw di la may fit. Ah, waaw nga lu xale bi bu xale bi ñëwee ba ne la ku ma woo rek. waaw <laughs> yow mi ko woo da nga naan nii bu ko defee <laughs> mu naan la nii sawaay waxal waxal. boo xoolee xaarim sàmb. <laughs> wax nga dëgg de. waaw Macky Sall daal benn maam daa bëgg a cëppal Sénégal. waaye da koo ragal wax. waaw saa yi naan ko waxal rek dara xew. gannaaw yi njëkk ya. waaw mooy xa <laughs> mooy ñi Youssou Ndour di wayal naan leen. Euh, boo ko ko waxulee nan la koy xamee nga la wax ko ko. wax ko ko waaw Macky Sall bu dangaa bëgg troisième mandat bëgg ko na. boo ko ko waxut du yow xam nga way wele wax xaw ma waaw waaw macha lañ ko war a wayal ak Sénégal quoi. daa mel ne daa daa daa bëgg yëf yi. <laughs> ah non non Cheikh wax nii kon Youssou Ndour war nañu fenn ci ginnaaw naan ko wax ko ko. la wax ko ko nga la wax ko ko. <laughs> ko koy waxee macha allah. loolu moo moo ci nekk. Euh, léegi nag maanaam noonu la demee moo tax maanaam euh, affaire bi. Mm-hmm. doy waar léegi nag Macky Sall moom dafa ñëw fa foofu laa koy jeexale kon. Mm-hmm. mooy ñëw na Tamba di leen wax ngir bëgg ñu jàpp ay waxam. waaw waaye kilifa goo xam ne maanaam moom la nga jotoon a wax lépp yaa ngi taxaw temb ci weddil ko sa bopp. waxuma nit ñi di ko weddi nga weddil ko sa bopp. waaw léegi li ngay waxaat nit ñi nuñ koy téye. du neexatee waaw. Mm. ndax loolu laa xamut. doy na mm, <laughs> waa Tamba nag bu leen tombee ci <laughs> waxtaan baa bu leen tombé ci biir jërëjëf Cheikh Bara Cheikh Bara waaw <coughs> eh, Cheikh Bara dañuy ñëw ci Macky Sall président Macky Sall mi nga xamante ni bii mi ngi waajal discours boo xamante ne bii ñëpp a ngi koy xaar 31 décembre. ak tamit euh, xam nga 31 décembre bi moom nar naa xumb. tëgg mbool yar ca la. Mm-hmm. Euh, ak tamit li nga xamante ni bii mooy woote bi nga xam ni gars yi woote nañ ko tamit yooyu yëpp daal nga ratiseel ñu ko noo gisee dëkk bi fi mu toll nii ak li nga xamante ni war na xew ak yooyu yëpp noo jàngatee tamit ak looy xaar ci discours président Macky Sall waaw xam nga discours bi waaw man yaakaar naa fi ma féete sax ñëpp dinañ ko xam hmm. parce que bu la neexee léegi man ma defal la discours bi li muy wax lépp discours Macky Sall waaw noo koy defee taw defagu ko day ñëw ci cour de contre bi suppaate wane ne moom hmm, bépp kii daal bu ci am rek dañ ko leeral dige wax ay ay ay ay ay ay projet yu mu jaar maanaam maanaam maanaam wax bilan daal bilan am fi mu aw nangam nangam. def bilan waaw waxaat ne wax dina wax ci démocratie bi napp nit ñi. ci mhm. démocratie. démocratie yu mel noonu daal. Mhm. ay ay ay ay waaw léegi nag euh, ñu ngi jëm ci waajtaay nangam nangam nangam seere réew mi. Mhm. ci wàllu at mi ñu jëm ak premier ministre bi dana ko ci tudd tuddaat di wane ne am na première ministre léegi yooyu daal lay def. maanaam discours yooyu nga xam ne daanaka. waaw mën nañ koo waat. parce que Macky yàlla dafa dogal mënut wax. Mm. te it ay waxam du am révélation maanaam amul lenn lu bees loo xam ne da naan ci Macky Sall laa ko déggee. Mm. waaw moom mosoo gis révélation mosoo dégg it nit di wax ba naan na ko Macky Sall waxee woon. Mm. waaw mosoo ko dégg. ni ko Macky Sall waxee woon loo wax ba ngay ba nga gis ne kii li muy wax yëg na ko. maanaam day mel ne mooy li ma la wax rek ab groupe bu mu nekkal la ñuy wax lay wax bu groupe booba jàllee mu toppaat ci moom dafa nekk dafa jiitu ba noppi nekkaat al toppe <laughs> waaw maanaam ku ba noppi di toppe la eh. waaw nag. maanaam discours bi. waaw gis naa ñu bari nag bëgg naan waaw euh, moom day wax kon waruñoo tëgg bool yi parce que day wax. waaw waaye nit koo xam ne day woote ne moom maanaam kàddoom du dara ci pénc mi. waa kooku hmm. kàddu kay war nañ koo mën a tëggali bool. Hmm. war nañ ko tëggal bool waaw ah mais koo xam ne may sëñ bi boo bëggee tëgg say bool. Hmm. vingt heures lañ ko bëgg a tëgg. waa juy wax kii kii wax ak yow. moom taalibeem yépp ñu ngi lay wër naan la kàddu sëñ bi du dara mënut jàpp mënut a dégg. <laughs> waaye ko kay wërkatee wërkatee sa école. nañu xam ne taalibe yi ne rek. mooy sëriñ bi Farba Ngom. Eh, maanaam eh, ak ak ak ak ak ñoom Amadou Ba ak Ali Nguy Ndiaye ak ñoom ñoom ñoom Ahmed Suzanne Camara ak ñooñu ñooy ay taalibeem. Ah, ah? ñu ne kaddu ñoo ne kaddu Macky Sall du dara. mëtt jàpp lu mu du dara bu ko waxee bu ko waxut moo yem. waaw ko koo xam ne kay yow say taalibe nee nañ sa kaddu du dara. waaye kooku kan la mën a teg muy wax nii tëgg suñuy bool déet kan ah man de loolu laa gis. ku bëgg a ku nañ man de damay woote. man sax waxuma nekk ci biir waxuma toog ci salle bi di tëgg de. waaw ne na womat sa maam ñu génn ci rompagne bi wala si buntu kër bi. ku ne na womat nag kenn ku ne womat maamam. maam waaw parce que maire yi gën a sonn ci corona bi. Euh. waaw corona bi kuñ mës a dóor sa maam baa ñu dóor sa bàjjan baa ñu dóor la. Euh. baa nga mës a fay police 3000. waaw dégg nga. baa ñu mas laa ñàkk waaw baa nga mas a tukki ñu lay laaj ay nu mu tuddati mm-hmm. wala ñu dugal raakool bi fañ ko ah, sama bopp ah, dugal raakool nañ ma dugalub raakool ba defee ne laal na fii ah. <laughs> yooyu yëpp ba ku ko baalut génn leen ven vendredi waaw na ngeen génn muy suba waaw place de l'Obélisque ñu taxaw mm-hmm. wane ne ñaar moo moo moo impacté mbir mi waaw mooy mm. corona bi ni ngeen ñu fitnaale woon naqari nañu alal ji ngeen jël muy mille milliards. ngeen sàkkal ko pexe. Hmm. ñii séddoo ko ñi dugal ko ci ruq ñi naan xaw ma fu jaar ak jaar na fee. Hmm. loolu itam ñu mars ko ndax yàlla nag dafa bay nit nit du xar. Hmm. du bëy du nag. ñooñu boo leen defee lu leen naqareet yàlla mayu leen ñi mën koo manifester. suñ borom nag daa jox nit yëg-yëg. jox ko kàddu. saa bu amee lu ko naqari dangay mën a génnee ci yëg-yëgam. waaw wane ne naqarlu naa. mën a génnee ci kàddoom wane ne naqarlu naa loolu moo waral jataayu suba bi pour nit ñi génn suba nag na ngeen génn bu baax doomu aadama yi mm-hmm. ngeen ñëw ñu feeñal naqar wi nga xamante ne am nañ ko ci corona bi ak gérant bi ak njiit yi ko doon sere d'accord gannaaw suba vingt heures bu jotee mm-hmm. dafa am ñag ñoo xam ne dañ naan bu Macky Sall tàmbalee bu Macky Sall tàmbalee ak bu tàmbaliwul vingt heures <laughs> parce que mën naa am sax moom day tëggi bool xëy na moom mu tëggi bool ba noppi doog a discours hmm. waaye lu mën a am daal mooy discours bi moom bu tàmbalee bu tàmbali vingt heures hmm. ku yor oto cornel hmm. ku yor ab bool dóoral ku yor matu cornel waaw ku yor souffle souffleel ba ba vingt yi trente yi mat mu jeex su ko defee moom dana yëg ne fonkut kàddoom waaye ñun sénégalais yi ñoo ko ñun faale wuñ kàddoom noonu lay demee jërëjëf Cheikh Bara macha allah waxtu wi jot na léegi euh,